ni mu koy defee dubbu lislaam mukk ma ne ko kulla ni dubbu lislaam mu ni ma déedéet dubbu lislaam parce que dafay génne kanam gi pour mu rafet te te sama doom moom rek laa am sama doom bu góor bi te moom génne na fit wi ndax muuru bi rek kat génne na fit wi ma ne ko waaw loolu lu ci nekk mu ni ma rekk na ko bàyyi na ko bàyyi ndax sama doom daal moom laa am mës nga gis ku sa doom am jabar nga ni par nga nga damm loxo loxoom pour jabaram a ngi muuru rekk kooku doxul ndeysaan euh, xale bu góor bi dafa bare teggin mënul wax dara yaay ci dara la ko mënula wax ndeysaan damay xoolee nii rek ma ne amewul amewul kër kër xoolee nii rek amewu ko del waxtaan ak sa yaay nag di ko wax dëgg moo gën ndax doomu jàmbur du fi indi ma ko lu dul dëgg du dëgg xale ba mujj pànk piir nag ndax dafa tàyyi waaw mujj pànk piir dafa tàyyi bu muuroo noonu rek romb jigéen ji jigéen ji ni ko seytaane rajim bi mu ne ko yow itam seytaane rajim bi waaw ndeysaan xale bi di xoole rek moom amul caractère mënu ko régler mu gàddu leen indi ñoom ñaar ñëpp ma ma ni jigéen ji yaa tooñ bàyyil jàmbur mu muuru ah walaay ndeysaan loolu kenn mësu koo gis moom kay nag bu ëpp rek baax na ndax am na ci muraay yoo xam ne nag doo ñemee sax boroom wax dëgg yàlla ndax dafay ëpp dafay ëpp nag te boobu baaxul yooyu yëpp baaxul tabarkal la tabarkal bu ko defee rek ñu di ko def ndànk-ndànk tolérance tolérance tolérance tolérance baax na de lu nekk nag nga fexe ba jaarale ko ci yoon lu yàlla taxaw loolu rek mooy li am solo lu yàlla taxaw taxaw leen yàlla defal leen seen bëgg-bëgg yàlla sàmm leen sàmm seen jaboot sàmm seeni xarit sàmm seeni àndandoo sàmm seeni dëkkaale tabarkalla defar yëpp defar yëpp tabarkalla tabarkalla loolu rek mooy li am solo nu ñaan nag déwén dellu seen jàmm nu continuer maami yonent bi nii waxtu wu nekk yàlla nu ko yàlla defal eh, nu ngi nu ngi ziyaare itam sunu sang bi fi ñëw di sëriñ Habib sëriñ Habib Taal ko ziyaare bu baax a baax tabarkalla yàlla dogal rekk ndeysaan ñoom seen yéene moo demee noonu euh, papaam Cerno Muntaga Taha dafa dafa ma soppoon bu mu ëpp ndeysaan sëñ Babacar foofu ma booleeg moom moom daal kenn mënula nettali li mu daan daj ci man ndax rekk sopp ma ñuy ñaari mag ci Louga dañ ma soppoon ba xamatuñu lu ñuy def moom ak bunaal buri ñoom ñaar daal kenn kenn kenn kenn euh, président Ablaye Wade bi papa waaxoon euh, këram ba ñëw seet si ma ci benn baat ni ma nekkee sëriñ Njaay bu na sëñ Babacar lañ ko tudde ma ne ko moom la ko tudde Eh, bañ na ko ba kayitam yépp sëriñ kër Si Njaay la ci def wallaay ndeysaan ci cofeer rek sëriñ kër Si Njaay moom la ca def mu ne ma ma dem loolu xaw ma ko woon wallaay ndeysaan ba tax na cofeer kenn xamul fu muy jóge eh, góor gi Muntaga moo doon suñu lépp lépp lépp lépp lépp tabarkalla eh, bu alburi moom itam jaar foofu tabarkalla la moo tax rek sëñ Babacar nee na boo dee ndaw boo dee wut xarit wutal xaritu mag waaw ne njëriñ piir la waaw nen danga koy wut rek bàyyi ko fenn boo soxlaa waxtaan rek dem waxtaan ak moom te du tee nga ànd ak say morom sëñ Babacar a ko daan wax lu am solo la tabarkalla lu ama am solo la ñuy ñaan ci barkeem rek ci barkeem rek ci barkeem rek ci barkeem rek ci barkeem rek man bu ma ñaanee ci barkem dara te aw ma ko sax keroog laa gën a kontaan yàlla xam na ko waaw dama naan ko suma fu bàyyi noonu rek waaye rek tabarkal la comme jommu nitu yàlla ji la dafay jékki-jékki rek daal di teer si noonu lay def de tabarkal la tabarkal la noonu lay def tabarkal la tabarkal la tabarkal ko defee itam rek wattandiku léegi jaxas yi dafa ëpp ñuy wattandiku rek lu nu mën lu nu mën nu wattandiku wattandiku wattandiku wattandiku di ci joxante ay xalaat di di wattandiku di wattandiku di wattandiku tabarakallahu bu sunu borom dogalee euh, nu saxoo rek ñaan ndax gànnaay la gànnaay la boo xam ne tabarkal tabarkal la dara rafet bu ko kaw di ñaan rek nag yàlla ko joxoon yonent bi di ñaan rek di ñaan rek di ñaan rek ndax euh, Maodo ak Taay Yàmb tabarkalla tabarkalla tabarkalla ndeysaan ndeysaan they said. Listen. première Moussa assisté say waxtaan moom la doon yëgal rek ñu teewaayam fii mu fii sofe ñoom ñoo ne woon ñu jotal yéen la ko Sëriñ Mbàkke wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moo ñëwoon ci ñetti fan di coow li ak yi ci des yëpp ñëw na wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wala ah noo ko bokk tabarkal la moom de noo ko bokk ci façon bu la kenn mënul nettali bu la kenn mënul nettali noo ko bokk ci façon bu la kenn mënul nettali yàlla xam na ko ci façon bu la kenn mënul nettali wallaay ndeysaan noo ko bokk ci façon bu kenn xamul noo koy tudde sax tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla ah moom de sunu way jur wu baax wa sëriñ Fallilu Mbàkke daf ma daan wax ni sa bàyyi la gën ma ne ko weddiwuma ko mu ne ma ndax du dama bant te waxuma ko mukk yow nag damay jékki-jékki rek dégg ni taal nga marché ba <laughs> ma ne ko jalaa toll lay ndeysaan tabarkal la kenn amatul kenn amatul kenn amatul lu gën loolu kenn amatul lu gën loolu bi may génn léegi fekk na sax maa ngi xawoon banque si lëf waaye bi may génn léegi la ma Serigne Moustapha mi jox enveloppe bu day nañ ñay ni ma sa baay baale ko yónnee Serigne Saliou waaw loolu nit am na lu ko bëri tabarkal tabarkal la fekk maa ngi banque kat wallaay ndeysaan <laughs> <laughs> wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moom dafa bari yërmande te dafa baax tabarkalla tabarkalla euh, Maodo Sylla bii gaañu yal na yàlla yërëm ko dafa am histoire yu doy waar ñëw nag wax si ma ko ma ni ko Euh, demal seeti euh, boobu sëñ Abdou moo fi nekk ma ne ko demal seeti sëñ Abdou Lahad nga waxtaan ci ak moom ma ne ko te bu ko keneen dégg nag mu ne ma d'accord mu dem seeti ko nag waxtaan ci ak moom mu ne ko yéen itam góor dafay muñ waaw mu ne ko góor dafay muñ góor dafay muñ góor dafay muñ mu ne ko gis nga waxande wii ay lettres ma ci nekk ba fees te benn bu ci ne lu nit lu neex waay wax na ko ci lu ko góor dafay muñ wallaay ndeysaan góor dafay muñ de muñ wallaay ndeysaan bu ñëw di ma ko nettali ma ni ko mu ngoog nag gis nga boo muñul da ngay xëy rekk fii génn réew mi te boobu baaxul lu ko boobu baaxul de wallaay ndeysaan wante sunu woy jur yooyu dañ ñu xoolee sëriñ Babacar bu mu ëpp moo tax dañ ñu sopp bu mu ëpp euh, sëriñ Cheikh Mbacke keroog bi sunu baay bu baax bi wuy jë boroomam ndeysaan sëriñ Modou Moustapha te digal ko ni ko contact bi ngay jëkk jël jëkk ko jël ko ak sa baay Babacar ndeysaan mu jóge ci ñëw seet si sëñ Babacar si waxtaan ak moom ba noppi euh, dindi la muy dindi jox ko naka la dëdd mag ñépp ni ko jox nu ci sunu wàll mun leen ma lànk waaw bëgg ci di leen ma lànk lii maa ko moomal sama bopp duma koy jël yéen duma leen ci jox dara wallaay dafa mujj ñépp di ree wallaay ndeysaan pour wax la ni ñoom xam nañu li ñu bokk te it xam nañu rekk euh, seen wàll seen wàll ñoom xam nañu ko te boole ci kenn nag boole ci kenn tabarkalla tabarkalla ba tey nun moom la ñuy dundal moom la nuy dundal xëy jamono soppeeku na waaye du teenu dundal ko nag ndax itam wax dëgg yàlla ah, jamono warul nu not nag ba àgg foofu mënul nekk nga defee rek nu di ko dundal seen teewuwaay ak sunu teewuwaay yépp tabarkal la tabarkalla tabarkalla euh, dafay neex ci xol te dafay neex itam ci diine te dafay neex itam ci deret te dafay neex ci yépp tabarkalla tabarkalla tabarkalla loolu rek mooy li nga xam ne moo ci nekk ci yépp ci yépp lay neex ci yépp ci yépp ndeysaan te man dama ci am part spéciale wallaay ndeysaan yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal tabarkalla tabarkalla yàllaa ko dogal bu ko defee nu di ci bëgg rek nag ak di yokk ñaan yàlla ak di ñaan yonent bi rek mu gis sunu jataayu tey bi di nu ci defal leer tabarkalla tabarkalla te aar nu rek aar nu aar nu aar nu aar nu aar nu aar nu tabarkalla aar nu tabarkalla Haruna rek la yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla defal tabarkal la ah, bu ko defee yéen a fi nekkal président ngeen gërëmal nu ko kenn xamul sama wala rek moom kañ la dale ca 1960 la woon ba léegi wallaay yàlla xam na ko papa mit la même chose moom itam tabarkalla euh, yu bari la ma daan nettali yoo xam ni euh, nee ma lu ne lan daan werante ci sa maam ndax demoon nañu ba dégg ni du nelaw du nelaw nee na xale yi di ko soow ma ne man danaa ko ko laaj mu ni ma ndax ba ma xaleel dama dëgëroon nee na ma ñëw rekk toog jékki-jékki ni ko góor gi man de dama am lu ma la bëggoon laaj nee na mu ni lan la woon ma ni ko nit ñi dañ ni doon nelaw nee na mu muuñ muuñ boo xam ni ndeysaan muuñam boobu ni ma doom mas nga gis nit ku dul nelawa ah? waaye nag duma ko sàkku waaw duma ko sàkku de xam nga loolu eh, ñàkk sàkku nelaw mag ñu baax ñi def leen dal ba tax seen nelaw du paase benn waxtu bi ñu toog nii nelaw ko rekk génn ca jeex na ci ñoom loolu ñoog ñi nekk ci médecine beeg ñi nekk ci ñoo ko bokk am na ñoo xam ni seen nelaw nelawu toog lay doon xale bi nee na ma